jungle li ci nga xam ne moom lañ ci war a bàyyee xel war ko cee fàttaliku bu baax a baax itam mooy seen nekkin ya ñoom mag ña ak seeni njàngale seeni njàngale buñ nee jàng rek day mel ni moom njàng moom bind rek la war a doon te mel ni dafa am benn woykat boo xam ne dafa waxoon ne lay safil kutubi wal xaraati sa ilmun waaye innamal ilmu fi suduri rijaali su fekkee ne feeg yëroo téere bi rek doo am xam-xam dafa mel ne sag am xam-xam mi ngi des bu dee li ñu bind ndax dañuy wax maam xaali radiyallahu taala anhu nafaana bi barakaati yi daf daan wax ni buñ ne diw de jàng rek la xam mu ne laaw la wala xawata xamut jàng sax kon mu mel ne seenum njàngale li ci ëppoon solo moo yar yar muy li am solo ci doomu aadama ndax leneen lu dul loolu rek fekkoon nañ ko fi fekkoon nañ fi njàngum alxuraan fekkoon nañ fi xeeti jàmm yàlla yi nga xam ne mi ngi fi ñu di ko def waaye li nga xam ne moom la sëriñ bi organisé mooy jël nit ki di ko orienté di ko teg ci kaw yoon ba fu mu dem man faa ne lépp loo koy liggéey lu itam mu sellal ko te du ko yàq te boole kooku jàmm yàlla am loolu moo fi indi yoonu tarbiya loolu nag liñ ciy xalaate mooy ñun nga xam ne yàlla àtte nañoo ñun lañ nun lañ fi bàyyee li ndono loolu mooy su ndono nu fexe ba loolu bañ wër ci te mooy li baat yi nga xam ne lébu yi dañ koy faral di wax nga xam ne mooñ leen tudde genn mbootaayu lébu gu ñuy wax rakk topp mag doom topp bàyyi kon ñi fi nekk ci ay mag nañ leen ñaanal ñu yàgg fi te jéem a topp ci seen gannaaw tey déglu seeni ndigal te jéem a góor góorlu ba li fi mag ñi bàyyi woon bu rëcc la ci jiitu mooy alxuraan ak sunna la ca tege mooy fexe ba sàmm yar ak teggin ndax dafa mel ni sëñ Bay lim ci junjoon ci benn taalibe walla mbokk mu ngi doon wax asan daf ko ne woon irik asan loo mën a xew awal ndigal te yaru yow kon danga nga yépp wépp yiw te rek maa la ko wax lépp lu dee fi dox di wut yara ko gën gën koo rafet moo moo jara dox junni baat di wut sëriñ bu la ko jox da koy topp ba ak mun naa juddoo ki jur mët la damoo ndax di wéy sama maam di wéy rek loolu moom ay ndono la yoo xam ne mën na doon saaxir waaye mënta doon la ca des jur mët la damoo ragal yàllaa mata damoo te nee noon ka ko am du ko damoo ngir dootu gis baaxam nga sax kon góor góorgóorlu ba képp kuy wane boppam ñu seetlu ba xam mooy kan képp koo xam ne nu nga ànd ak moom mu dina won boppam nan xool ba xam mooy kan képp ku nu àndal mu di la won yàlla kooka la kooka mata àndal Sëriñ Tuubaa waxoon nañu ko kullu man xayrul ilaahi dallaka fa firra minhu innahu atalaka képp ko àndalkat mu di la wan lenn lu dul joxoñ benn lu dul yàlla na ko moytandiku daw leen ko ndax kooka day sànk dafa sànk ba noppi te day sànkaate xew-xew yi jamono ji nag woote yi bari na coow li bari na waaye kenn ku ne xoolal fi ngay teg sa tànk kenn ku ne xoolal ki nga jëm kenn ku ne seetloo bu baax ki nga war a àndal nga àndal moom loolu daal ci gàttal xam naa ne mag ñi noonu lañ doon dunde loolu itam ci lañ doon yar ñiñ nekkaloon ñuy moo xam seeni taalibe lañ moo xam seeni doom lañ moo xam seeni jarbaat yañu nekkaloon ci loolu lañ doon dund ñoom loolu lañ doon loolu lañ doon yare te àndoon nañ ànd ba rafet te dara mu si ñaaw ba bisub tey bii ñu toog di wax ak yéen kon loolu nan ko gën a sàmm gën koo rafetal lépp luñ ci mën ñu dox te jéem a roy ca tànki man ñi rek loolu daal mooy li nga xam ne xalaat nañ ne euh, mooy waral ndaje yu mel nii euh, dañuy faral di wax nag naan gars yi seen ndaje yi bari waaye waaye ndaje yi man pour man daa duyut euh, li ma wax nag sànq nii dégg naa sëñ Mor Sassoum Diakhaté daana daana xalaat daana wax ni bu njëkk di kilifa da daan ŋàbb ab làmp di niit jiitu na ñëw leen nu dem ba mu yàgg beneen kuur bi ci topp dañuy ŋàbb làmp bi toog di niit na yoon waa nga nële dem leen ah kon bu ñuy dem di dem di dem ba mel ne kon fa yaa làmp ba yem ñoom fa la yem waaye ñoo tax ne bu mujj bi mooy bii muy junj léegi te ñoom dañuy wëlbati làmp bi rek dëpp ci seen waaye dëpp ci seen bopp ne maa ngi nii ñëw leen boobu nag la ñuy xool moo tax muy moo tax muy mooy mooy li ma mujj junj léegi ci ni képp ku ñu àndal nañ xool ba xam mooy kan nañ xool ba xam fu mu ñu jëmee ñu daal moo ngi koy barkeeloo ci bis bi bu li ci rafet def nañ ko addi borom bis bi waaye lu ci njuumte itam mbaa mu kii def nañ ñu xam ne sunu manqué la waaye lu rafet lañ ci bëggoon in uridu ilal islam mustata'tu ma tawfiiqi illaa billaah alayhi tawakkal asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.